قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني مما وحن محمد صلى الله عليه وسلم نكو وخال غاي نلن بو فكنتني بغنا يالا فاتبعوني نن لا توب ياو الله يالا سن بروم دي بغ ويغفر لكم ذنوبكم يالا سن بروم دي جيغل سيني محمد صلى الله عليه وسلم لا يالا سن بروم وخون لول نك نلن بو فكنتني نيوم بغنا يالا نن لا توب ياو يالا سن بروم لين سيني بكار ñu xool ne borom subhanahu taala ki nga xam ne moom la ñu topploo moom mooy Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom la waxoon ne ko toppee rek ngeen jub kon bu ñu naan tey l'islam bu ñu naan tey jaamu yàlla ci ñun jullit ñi ki ñu wàcce suñu biir moom mooy Muhammad sallallahu alayhi wa sallam amul dara lu bàyyi amul dara loo xam ne bàyyi na ko moo xam ne lu ñuy jariñ la lu ne wax nañu ko amul dara loo xam ne itam maanaam lu ñuy lor la lu dul ne rek moom Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tere nañu ko kon lan moo indi tey seytaane demaat ba duggaat suñu biir ñun jullit ñi taaralal ñu li nga xam ne moom moo ñaawoon ñaawalal ñu li nga xam ne moom moo rafetoon jullit ñi di ko seetaan mel ni kon xadis yi nga xam ne moom la Muhammad salaa salaam doon doon jàngale bu njëkk wala aaya yi nga xam ne da doon wàccee ci borom subhanahu taala mel ni kon dafa jékki-jékki dañ mel ni comme si existeetul loolu amatul te Muhammad salaa salaam waxoon na ni man ahdasa fi amrina hada maa laysa minhu fa huwa rad képp koo xam ne dolli nga suñu mbir mii lu ci bokkul dañ la ko delloo delluwaat wax ne man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa rad képp ko xam ne jëf nga ab jëf bu bokul ak suñu jëf ñun Muhammad alaihi wasallam ak ñi ko gëm dañ la ko delo tay nak ko jakarlo ne ko Muhammad alaihi wasallam day mer te du yoon sax nga wax nit ndax du ko nangu waye nak ana kan ci ñun tay ci jamono ci aduna mo mo pare pour ne Muhammad alaihi wasallam lepp lu ma jangal deug la lepp lu ma ne baxul baxul tay ñu dem ba ñi wax ay waxtaanu ay franc-maçonnerie di wax ne franc-maçon yi léegi dañuy dugg ci bir julit ñi am ay imam franc-maçon am ay kat Qur'an franc-maçon am ay doomu aadama yoo xam ne ay faramaçon la ñuy doon ñëw taxam am audace nag bu toll ni jàkkaarloog doomu aadama yi di leen jéem a convaincre ci loolu di leen wax ne lan moo koy accepté ba xam sàngam mooy accepté faramaçon bon na wala baax na wala sàngam mooy mooy mooy naan faramaçon bon na wala baax na faramaçon lu xaram la lu bon la kan moo koy war a kan moo ñu koy war a xamal ku dul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam suñu diina ji lépp loo xam ne nekku ci woon avant Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba ci même bu fekkente ni yalla suñu borom dara denk milliard bo waxe lu deug li nga wax du deug amul même bu fekkee borom santa la nguur la la dénk boo toppee tiaxan caaxaan nga top ndax gis nga àddina bi ñu nek ñun ñep dañ fi juggé ñun ñep dañ fi juggé taxaw borom santa la ci kanamam mu atté ñun ñep yalla suñu borom loolu la wax yeen ñep di ngeen fi juggé téwat sama kanam mu atté leen yéen ñep gis nga kon aduna bi jarul ay ringi-ringi ndax mënu ñoo wax ci l'islam ba faramaso nari nekk loo xam ne lu bax la loolu mënu nek yalla nañ si sax buggal ñuy tok di ci débat ndax baax na wala bon na yàlla suñ borom moom moo leen ci Qur'an inna sheytaana lakum aduwwun fattaxizuhu aduwwa sheytaan seen noon la jàppee leen ko seen noonu moom moo ko wax tey ana ñu yoroon aaya yooyu nga xam ne jàng nañ ko ana ñu yoroon xadis yooyu ñoo xam ne jàng nañ ko duñ ko génne ñu wax ko wax ko nit ñi ñu dégg ko convaincre suñuy ay doom convaincre suñuy ay rak convaincre suñuy ay mag ñi xamul ñu xamal leen ñu mën a moytu phénomène boobu ndax franc-maçonnerie lu bon la amul kenn koo xam ne mën ngaa taxaw di accepter franc-maçon baax loolu du sax xalaat yàlla nee na ci Qur'an inna sheytaana lakum aduwwun fattakhizuhu adwa nee na sen non la jappel len ko sen non ma leen di xamal ne len leen su dëri ci kaw lañ ko taral di wax ne jàmm lay doon mais masih dajal turam mi ngi ci bir te xam nañ kan moy masih dajal yonent bi salaa salaam neena amul benn fitna depuis yalla suñu borom wacce fi aduna batay amul benn fitna bu gëna reuy fitna masih masixi dajal ci kaw julit ñi te masih dajal moy borom benn bët bobu ñi taf sen benn bët bi diko won doomu adamay yi masih masix dajal lañ lay won mandargay masix dajjal lañ lay indil te lan la yonent bi sallallahu alayhi ci masix dajjal nee na masix bu ñëwee jàmm la la njëkk a wax tey ñu ngi dégg ci àdduna bi ku nekk naan la religion de la paix la la religion unique lii lii sam-sam dañu woo ci leneen ñun ay jullit lañ l'islam lañ gëm ñun bokkuñu ci ay religion sàngam wala religion sàngam l'islam lañ gëm mooy bi Muhammad sallallahu wàcc lii moom mooy taxawaayu jullit mais leneen li ñuy indil yépp ay ay benn yoon ne leen lii moom mooy bi topp leen ko ba mu yàgg mu def ay ñall bi ne bu leen topp ñall ñall yi képp ku ko topp rek di nga wàcc yoon bi ba jëmmi tey képp ku topp ñall ñall yooyu wàcc yoon bi moo xam nag da am doole ba ko wax nga dóor ko wala da nga am doole ba ko wax nga tëj ko wala da nga am doole ba ko wax nga njabar ko yaa xam mais doole nag bu la nga néewal ko doole loolu moom doole ku ko ëpp doole mën ko néewal doole ci réew moom lañ ne waaye li ko te xam ne promotionnaire affaire cheytaan la Masiix Dajjaal Muhammad sallallahu alayhi ba pare buy ñëw benn bët lay am nee na yonent bu mës a wàcc ci kaw suuf xibaara nga sax xeet ci mbiru masix dajjal te set yooyu ñu ci ëpp ci ñoom masix dajjal la ñuy jaamu te yonent sax nee na masix dajjal nga sax xeet ci mbiru masix dajjal waaye nag dinaa loo xam ne benn yonent musu koo wax xeetam ñu ne ko lan la woon mu ne huwa aawar kooku patt bët la wa inna allaha laysa bi aawar te yàlla suñu borom nekkul patt bët tey patt bët boobu lañ jël affiché ko seen benn bët boobu xam nañ la la mooy mbëdu masix dajjal bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam lu leer lañ ci jàngal biñ ko laajee masix yan dëkk ak yan dëkk lay dugg dafa ne dina dëkk dina dugg dëkk dëkk yëpp bu génnee mu masix dajal dëkk yëpp lay dugg ba mu des Màkka ak Médine te Màkka ak Médine sa day taxaw ci diggante bi jël tànkam ba di ko fëgg tànk góosam di ko fëgg ci diggante bi ba ñaari dëkk yi am tremblement de doomu aadama yi génn topp ko moom masix dajal moom mu jamat jagante ñoom jëm safara yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ne mu ne monsieur Dajjal bu ñëwee li muy njëkk a woote mooy jàmm bu demee ba ci biir doomu aadama commencé ko topp mu woote woo yonent bu demee ba ci biir moom monsieur Dajjal mu ne leen man maa yàlla kaay leen topp ma ñu ne yonent yonent bi sallallahu ngir bañ mu topp monsieur Dajjal ma leen di wax mu ne na ndax fitna monsieur Dajjal bu rëy nee na day fekk nit ne ko man maay yàlla mu ne ko yow doo yàlla ndax boo doon yàlla di nga mën a taaral ma li ma bëgg mooy am taar ndax damaa ñaaw nee na masa daal suñu borom may na ko kàttan boo xam ne day raay kanam gi ci saa si ndaw si am taar mu daal tubbi ne ko yaay sama borom topp ko yonent bi saa sallam ne ko yàlla mu ne ko boo dee yàlla dekkilal samay ñaari waajur woon boo ko defee rek ma xam ne yaay yàlla saa sallam na ci la jëlee ñaari jinne melokaano leen comme melokaano ay waajuram ñëw taxaw moom ne ko doom gëmal kii mooy sa borom kooku daal di nekk yéefar ci saa si toppi masix yonent bi salaam ne képp ku dégg masa dajal mi ngi bërëb sàngam bul fa sax doxantu bul jaar yoon moomu jaar jaaral fa ca des ndax nee dina am benn waa joo génn këram ne maa ngi dem fekk ji masa dajal weddi ko wan ne ko yow doo yàlla yonent bi salaam ne bu demee taseeg masa dajal dëggal ko ne ko yow yaa yàlla ndax convaincre bi nga xam ne moom la ko masiix dajal di convaincre tey ana ñaata nit ci ñun la franc-maçonnerie ndax faramasu mbir bi dara du mbiru seytaane ndax seytaane bi wax ak yàlla loolu la ko waxoon dinaa leen dikkee kanam dinaa leen dikkee ginnaaw dinaa leen dikkee ndajoor dinaa leen dikkee càmmoñ wala tajidu aksarahum shakirin yow yàlla di fekk sa jàmm ñu ëpp si ñoom duñ la sant mais lii moom mooy tracé masix dajal lii moom mooy euh, euh, projet masix dajal léegi nag faramason yi dañoo tas ci àdduna bi yëpp dëkk bu nañu ngi fa boo nekkul a yéeg sax ñu xeex xeex la di xoqatal nit ñi di tiital ni dëkk bu nekk ñu dugg fa bu ñu demee

ngalawaay nañ ko gëm bu ñun ay julit lañ daa wax te Muhammad sallallahu alayhi wasallam mooy suñu yonent te lii lañ jàngal dafa ne wa alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin ci yàlla ngeen di a wakkiru mais pas ci ay loge pas ci ku ci ay gouvernement ngay kaas ay groupement ay sangam-sangam ci yàlla la ñuy wakkirlu kenn wakkirlu ci ci yàlla ngeen di wakkiru in kuntum mu'minin bu dee ñu gëm gen sénégalais il faut ñu jéem yeewu ci loolu il faut ñu jéem a xëpp suñu bët xool ci loolu ragal gi lañ war a bàyyi yàlla dafa nañ ci bu leen ragal wala taxzanu bu leen jàq yéen jullit ñi wa antumul aalawna yéen ay gañe yéen ay gañe in kuntum mu'minin bu leen ñu gëm yéen mais xam nañ bi même masix dajal bi ñuy topp noonu di ko jaamu moom bu ñëwee isam nu mariam day wàccaat rey ko kon loolu loolu kon loolu nekkul lu taxaw nekkul lu tegu lu fi ñëw la après mu demaat jarul mu yóbbaale suñu ngëm di ko fëkk doom ndey mbok julit ni même buñu gisé ku dawal ay 4 4 di jar 1 milliard mu fokk suñu bët ngeum yalla gëna riche lool ngeum yalla bi nek sa xol mo gëna riche lool bari wal na koy ñee fekk wéete néegam day joy ndax xam na lim def bari na doon naka yalla day wërsegal ay jaamam mais bari na toog koy ñee mu romb la ak ay auto 4 4 di jar 50 millions 60 millions 100 millions fek bu wété néegam day joy am nañ ci ay preuve leer ñoo xam ne bëgg ñu seen aduna mais bari na du jeex bala ma sonn nak di gëna mer rek ñu indil ñu ay mots ay jeu de yoo xam ne kenn xamul fu mu jugee ay ay ay islamiste ay terroriste ay radicaliste ay ay ay ay ñu kenn xamul te yooyu ñoom ñoo seen bopp kan mooy kan bi kan mooy kii bi mooy ki nga xam ne dafay pratiquer religion mais comme ñu ñëpp ay islam islamiste ci dee tey am na ci koo xam ne président bi am na koo xam ne day taxaw ne man sama bakkan la ma jaral moom boo tuddee président bi jaral na sama bakkan boo tuddee sàngam jaral na sama bakkan nit taxaw ne boo tuddee diw man jaral na sama bakkan nit taxaw ne la boo laalee sama yaay jaral na ma sama bakkat mais nit amul fiitu taxaw ne islam man jaral na ma sama bakkat pour la imam bi moom léegi xoolal imam yi warul ci jumaa yi warul ci jàkka yi imam bu ciy wax ci l'islam daa am fooy yem pour lan te lu yàlla wax leer yunt bi salaam ni mu jàngale leer da ngaa war a wax mu leer sinon dinañ dem ba suñuy doom ku ci judd franc-maçon ngay doon nañ def attention ci problème d'éducation bi ñuy wax que attention ki amul éducation nan la a participer suñu éducation dëkk Rihanna Rihanna ban participation la mën a def ci éducation Sénégal Rihanna day futteeku déjà Rihanna du sol lu baax Rihanna melokaanam doy na waar Rihanna li muy wax baaxul li mu gëm setut nekkul jullit li mu gëm du l'islam ñun 97 pour cent musulman lan la Rihanna def suñu biir pour mën a participer suñu éducation kenn xamu ko yàlla ñu yàlla suñu borom sàmm te musal ñu seytaane mi suñu biir te mi ñuy tegal ay pièges yoo xamante ni képp ku ci deful attention di nga daanu jeex ay secta fi ne yoo xam ne yu baree baree bari bari la lu nekk la lu nekk lañ lay proposé pour nga def ko lu nekk lañ lay proposé donc ñun suñu lislaam bi nañu doy na man sama dund amul dara lu ma xam ne man Muhammad baax na ci yéen leen di jariñ la lu ñu la jàngal naa leen ko amul dara loo xam ne xam naa ne lu leen di lor la lu ñu la rek man mooy tundu ko noonu naa leen ko man Muhammad sallallahu alayhi wasallam kon loolu leer na ne borom subhanahu wa taala est-ce que man matal naa laaj ko saxaaba yi ne ko matal nga mu ne yàlla suñu borom seedeel yàlla wàcce aaya mi surtout maida al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'amati wa raditu lakum al islam dina An mbecte mo xamne yalla suñu borom mi ngoy tabal ci xol ku gem yalla te mbecte googu jaamu yalla mo koy mayndi nit ala allah mo koy mayndi wakirmu ci yalla meme bu fekente ni ci kanamu bur nga taxaw wakirul ci yalla meme bu fekente ni ci kanamu nasaran ci nga taxaw wakkirlul ci yalla meme bu fekente ni ci shaytan nga taxaw ci yalla ñaata yoon la iblis dëgmal julit am fa defet ñaata yoon kene xamul lu tollu bi ben histoire ben xale la bu ndaw boo xam ne papaam da kaa dugaloon ci benn bu xaaba pour mu fay jàng njabar benn seytaane maanaam comme ni ñu ko gisee suñu jamono rek nga xam ne nit ki nitu seytaane la mais dañuy woo nit ñi pour ñu dem topp ji ko dañuy woo nit ñi pour ñu nangul ko dañuy woo nit ñi pour gëmloo leen ne li muy def nii islam d'accord na ci islam jàppee ko dara wala yaasu billah kii papaam da kaa dugaloon pour mu dem jàng ci njabar bi mu koy jàng ci benn bu mu rombu ben labbe ci yoon bi ben chrétien mom mi ngi jamm yalla di selal ci yoon bi chaque jour da ko lab da ko doon romb ndeysaan ba benn bés mu ne man nak dina taxaw laaj ki ma gis ni muy julle ke def yef mom limu nek ni lal ben la xale bi di dem di jang ji njabar daal di jadd ci waji ci euh abbe bi nekkon fofu ne ko waw yow dama lay laaj li ngay jamm ni lum don mu ne ko man yalla lay jamm mu ne ko kan moy yalla mu ne ko yalla moy ki bind asaman moy ki bind suuf yalla moy ki ñu sàkk ñun ñep di jox ñu lek di jox ñu naan koku la jamm mu ne ko ha mu ne ko waw mu ne ko léegi nag ah man kee may topp nag waaw ah, xale bi continué di fa dem di dem di jàng ji njabar buy retourné jaar ci labbe bi saa su ne buy dem rek day jaar ci labbe bi buy retourné rek jaaraat fa ba benn bés moom xel ñaar ci ñaar yi abbé bi li may wax mooy dëgg ci yàlla wala bu xaaba bee njabar gam may jàngal wala lu bon la may jàngal ndax mooy dëgg benn bés muy romb ci di dem fi mu dëkk këram daa di fekk benn rab bu mag bu taxaw ci angle bi baaram nit ñi pour ñu jàll doomu aadama yaa fa fees dell kenn mënul jàll ndax ñamuñu rab bi bi mu ñëwee ba ci ñoom mu laaj leen ne leen waa lan moo xew fii la moo leen tere jàll ñu ne ko rab bi moo tax parce que rab bi moo ñu tere jàll ñun ñëpp fii ak mi ngi fi taxaw ñun duñu mën a jàll ndax dañ ko ragal xale bi daan ne nag tey laay xam ba xam bu xaaba bi li mu ma doon jàngal mooy dëgg wala abbe euh, bi li mu ma jàngal mooy dëgg nitu yàlla bi li ma doon jàngal mooy dëgg wala nitu seytaane bi li mu ma doon jàngal mooy xeer ne yàlla bu fekkente ni nitu kooku di la jaamu noonu mooy abbe euh, bi li muy def mooy dëgg su ma sànnee rab bi xeer bi yàlla na bu fekkente ni nag li muy wax du dëgg su ma sànnee rab xeer yàlla bu mu dee bu dee buxaaba bi li muy wax mooy dëgg yàlla bu mu dee mu sànnee rab xeer bi rab dee xale bi daal di gëm ci saa si ne kon ndekete kon yàlla mi sàkk asamaan suuf moom la a topp du du buxaaba bëre du seetaane bee bon na benn paa boo xam ne ñoom ñaar dañ doon nekk souvent benn paa wu silma silmaxa la bi mu ñëwee ci moom di waxtaan ak paa bi ci yàlla naan ko yàlla de am na koo xam ne buur bi ñuy jaamu ci dëkk bi du yàlla yàlla mooy ki sàkk asamaan mooy ki sàkk suuf mooy ci amal ngelaw li amal doomu aadama yi moo ki amal géej amal sangam sangam ah waaw li ngay wax ni doy na waar de indil nga ma beneen yàlla bu dul buur ne ko waaw mu ne ko mais est ko gëmee sama bët yi nga xam ne du ne ko waaw yàlla daal bu ko ko gëmee mu leeral sa ah, <coughs> paa bi ne ko waaw gëm naa ko daan na man daal ashhadu an laa ilaaha illallaah maa ngi seede ne amul kenn ku ñor jaamu ku dul yàlla boobu weddi naa buur bi buur bi du yàlla rek bët yi gis ci saasi gumba bi daal di ànd ak xale bi ne ko yun liñ nekk nekk te dëgg mais ñun kon bu ñu bàyyi xale bi ne kon bu ñu bàyyi buur bi nañ dem wokk buur bi xanaa xamoon nit diine bu taxawee ak buur wala bu taxawee ak ak ku am doole da war a wax yàlla amaana sax mu dimbali ko moom ba ba moom tey mu delloo xelam ci yàlla wala mu commencé di jaamu yàlla suñu borom mais da ngay ñëw ci saasi rek dindi sa kaala ak sa kii teg fële nekk ceddo ba ba ngay tàqalikoo buur wala ba ba ngay tàqalikoo nitu is nitu seetaane bi wala ba ngay tàqalikoo nitu adduna bi diine bu njëkk mel xale bi ànd ak paa bi dem fekki buur bi këram bi buur bi daal juk taxaw ne len waw man dama am luma jaxal sama xarit bi mom bu daan ñew dañ koy womat ay nit ñokoy japp pour mu mëna ñew ndax daawul gis mais tay mo indi bopam di dox di ñew lu tax paa bi ne ko mu ne ko mu ne ko yàlla moom defar sama beut ma gis ndax dama gëm yalla legi moo sama beut mo tax mu leral sama beut ma gis bur bi daal di fëgg dëndam ne ko da nga xam benen yalla bu dul man mu ne ko waaw buur yow do yalla man duma yalla mu ne yow do yalla bur do yalla de yalla moy ki la sak sak ma sak xale bi sak ñi kooku mooy yàlla waaye doo yàlla du yàlla wallahi du yàlla waxoon nañ ko Firawna mu mer waxoon na ko Namrud ibnu Kanhaan mu mer bi ko Moussa waxee Firawna mu mer fu mu mujjee ñoom xam nañ ko bi ko Moussa waxee bi ko Ibrahima waxee Namrud ibnu Kanhaan fi mu mujj xam nañ ko xale bi la wax buur bi ne ko doo yàlla ci saa si buur bi daal di mer nit ñi rayal ma leen soldat yi tëb pour rey leen mu leen bu leen rey xale bi def leen ndànk mais mag mi moom ko ñu jàpp bi rey mu ne topp leen tracé bi am na fu mu jugee ñu topp leen ba jàpp labbe bi nga xam ne moo def gëm yàlla boobu ci ñoom daa koy indi daa koy teg mu taxaw ñu ne tiital leen xale bi boo leen ko tiitalee dina bàyyi li mu gëm ñu rey paa yi daal di téye xale bi yóbbu ko ba digg géej buur bi ne leen bu ngeen yeggee foofu bu nangu wala weddi yàlla bi mu gëm rey leen ko xale bi daal di lu ci yàlla xoolal wakkiirlu ci yàlla ñu dugal ko ci gaal yóbbu ba digg géej yëkkati xale bi jàpp ci tànk yi tiimale ko ci ndox mi ne ko weddil yàlla wala ñu sànni la ci biir ndox mi xale bi ne allahumma kfinihim bi ma shita yàlla dimbali ma ci ñoom loo man yàlla dimbali ma ci ñoom lu la neex yàlla teg gaal gi ci saasi jël benn ban teg ci xale bi daw ak moom génne ko rey ñi mu àndaloon ñëpp xale bi génn ba tefes gi xam ne borom subhaanahu dimbali na ko bu ko neexoon ñibbi këram mais mu delluwaat ci kër buur ba buur bi jug taxaw ne ko yow loo fi def mu ne ko yàlla sama borom moo ma muccal ana ñi nga àndaloon mu ne rey na leen moo leen moom buur bi boolewaat ko yeneen soldat ne yóbbu leen ko ba ci kaw montagne ya ko ñu demati ci kaw montagne jappati xalé bi tiimale ci suuf mi ngi ko tomelé suuf ne xalé bi weddi yalla xalé bi na allahuma ak bima shi'ta yalla dimbali ma suñuy ngelaw ngelaw ñëw dajj montagne bi ray ñu mu andalon xalé bi dundat dem kër bur bi bur bi ko envoyer ñeneen pour mu and ak ñoom bi ne bur bi di xaaral xaaral bur man mënoo maa ray tank neexul sama borom ndax man dama am borom moom ma sama bop mënoo maa ray tank que doomu adam yëpp ñu dajaloo ñepp nañ génn nak dajaloo nga talal si fit ba mu sës nga timale mako nga ni maa ngi xale bi bi ismi rabbi haadal gulaam ci turu borom turu xale euh, yalla xale bi ci la koy ray yaa ngi ray sama turu borom ñep di deg bo boo fité boba dina dé mais boko deful duma dé bur bi ne ko baxna dal di dajale dekk bi yëpp dajalo comme bur do wax ne moy yalla xale bi da ka bëgg humilier wal ñëpp ne mom du yalla bi mbolom yëpp dajalo bi dal di wo soldat yi soldat yi rangalo dekk bi rangalo di sétan ñu indi xale bi teg ko ci digg bi dari talal fiti jakar lo mom ne ko weddil sa borom xale ne duma weddi ne bur defal lima la waxon bur bi ne ko mang lay rek sama katan duma la rek sa turu borom da sa borom amut mang lay rek sama katan dari fit, bi mu fité fitt bi ñew ba ci kanamu xalé bi dari daal ne fitul jamul xalé bi xalé bi ne ko bur lima la waxon rek mo meuna ne ñepp ñuy sétan bur bi dari jël bi talalat ba mu seuss ne xalé bi mang lay rek sa turu borom dari fit bi jam ko xalé bi de ndegene xalé bi limu tudon jublu mo upp bi xale bi deewee xaaju mbooloo mi nekkoon foofu yëpp daal di gëm xale bi ne kon ndekete kon buur bi du yàlla de xale bi ki ñuy wax nii def lii suñu kanam kon ndekete kon kii mooy yàlla ndekete ñu war a ñoo topp buur bi di ko jaamu mais kii mooy yàlla kon buur yàlla xale bi mooy yàlla ci saa ñu daal koy gëm biñ ko gëmee buur bi daal di mer dajale waa dëkk bi ne leen gasal leen ma kàmb gu fi mës ta am dafa leen ci safara ju fi mës ta am soldaar yi commencé gas di gas di gas taxan ay matt di dugal di. xëmb di taal di xëmb di taal di xëmb di taal ba nee nañ picc bu naawoon ci kaw daanu ndax safara su tàng lan la buur bi def daal di rangale képp ku xale bi waa dëkk bi yëpp lañ rangale soldaar yi rangale leen is qutila asxaabul uxduud an naari zaatil waqud is hum alayha quud wa hum ala ma yafaluuna bil muminina shuhud yàlla nga koy wax ci quran ñu rangale leen ñu ñëw buur bi bu la indee ba nga tiim kàmb gi ak safara si dañ naan la gëm nga yàllay xale bi nga ne waa naa ko ñu sànni la safara si kilifa gi ñii yàlla lañ gëmoon te yàlla bi ñu gëm ñun moom lañ gëmoon ñoom pourquoi ñun ñu bëgg a jël suñu nafs yi jox ko xoolal xale bi li mu def bu ñu nee ba ci kàmm nga taxaw ñu ne la yàlla xale bi nga ne waaw ñu sànni la safara si wala buur bi mooy sa yàlla nga ne waaw ñu bàyyi la nga dem ndeysaan ci lay am ba jékki-jékki rek benn femme ñëw taxaw ci bunt bi safara si gëm xale bi gëm yàllay xale bi ñu ne ko yow yàllay xale bi nga gëm wala buur bi femme bi noppi ndekete dafa boot doom te li muy xalaat mooy man gëm naa pare naa pour dee bari naa pour ñu sànni ma safara si mais xale bi ma boot ndax gëm na mi ngi koy xalaat ndax gëm na wóoru ma mu nekk ci sikki sàkka boobu ba bëgg faa yàgg gars di ko laaj tontuwul mu noppi rek xale bi jékki-jékki yàlla suñu borom waxloo ko xale bi tàpp yaay ji yaay yaay ba yaay ji gestu mu ne ko tàmbalal sa bopp ci pax bi maa la njëkk gëm yaay ji sóobu ci bi pax bi fala faatoo ana xeetu gëm yàlla yu mel ni ana diggante Moussa ak Firawna fan jaar ak fa mujje Firawna ñu woote woo seytaane yàlla man yonent bi Moussa alayhi salaam ñu woote woo yàlla ne ko man yàlla suñu borom laay dëggal fu mujj ñoom ñaar xanaa yàlla suñu borom yóbbu Firawna ba ca ndox ma rey ko fa ibnu Kanhan fu mujj Ibrahim moom it xëmm na safara sànni fa Ibrahim Ibrahima wakkiirlu ci yàlla suñu borom subhanahu wa taala yàlla génn ko xasbiyallahu wa ni'mal wakiil la Ibrahima wax ci ñaata yoon la julli naan yàlla iyyaka naabudu yàlla yoo la ñu jaam yoo la ñu wakkirlu ana ko nekk farmason foofu xaju fa yàlla ci yàlla nga wakkirlu ana seytaane sa biir dund balay rend loolu dina def loolu nekk amu fa foofu bu dee yàlla ngay wakkirlu delloo sa bopp ci yàlla mu tëll boppam aar la sàmb la te ñu bàyyi ragal gi ñu nekkee loolu rek mooy dëgg ibrahima alayhi salaam sat lañ ko safara si mu dénk boppam borom subhanahu taala yàlla suñu borom génne ko lakkul deful dara te même bu ko fa yàlla rayoon mu dem àjjana kon maa ngi dénk dénk sama bopp ñu delluwaat suñu xel ci yàlla ñii ñuy wooye ay farmason yàlla ñu suñu borom musal ci ñoom yàlla suñu borom aaral suñu gëm yàlla te sàmmal ñu ko parce que loolu moom mooy dëgg tubaab yi war ñu leen a topp yahud yi war ñu leen topp ñu leen topp li yàlla suñu borom ci quran dëgg la wala yazaaluuna yuqaatiluunakum xatta yaruddukum an diinikum in istataaw nee na di yahud yi du ñu dañ ci di leen xeex fii ak yéen seen diine wa man yartadid minkum an diinihi képp ku génn ci yéen ci diineem faya mut mu dee ci wa huwa kaafir fekk yéefar la fa ulaayka habitat amaluhum fi dunya wal axira yàlla neen dinaa màbbal sa jëfi wa ulaa'ika asxaabu naari hum fiihaa xaalidun te da ngay tàbbi safara yàlla na ci musal kon amuñu ñun pour di gëm leneen lu dul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam xam nga chaque jour ñun ñuy wax naan ñu li fi mag ñi bàyyi woon li fi mag ñi bàyyi woon li fi mag ñi bàyyi woon sëñ bi franc-maçonnerie bokkul ci li fi mag ñi nañ ci bàyyi xel kon nañ ko xeex nañ ko fi dindi soxlawuñ ko suñu dëkk soxlawuñ ko suñu éducation soxlawuñ ko ci ay nit ñoo xam ne dañuy jiite di nekk ay franc-maçon soxlawuñ ko liñ soxla moom mooy l'islam Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy liñ gëm am nañ droit wax keneen amee droit wax leneen yàlla yàlla aaral lislaam sàmmal ñu ko musal ci ñi ñuy fitnaal ñi nga xam ne ñoom ñoo yor lislaam te di ko wax teg ko ci yoon yàlla neen yàlla aar sàmm leen aar leen sàmm leen may leen texe àddina may leen texe àllaaxira lépp lu si jub nag ci borom subhaana taala la jóge bu fekkee ne damaa juum ci wax ji maa ngi leen di jégalu bu baax di jégali sama borom ndax lépp ci moom la aju ay nit leen rek dañuy jéem kon asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu